waxi jinikat la te man awma temps boobu comme kilifa nga waxal waxi kilifa ñu waxtaan soo ko waxul ma coupé la ñu dem suñu yoon parce que nag wax dëgg yàlla woowu ma la yaa ma woo mu ne ma lan moo ñu tàqale ñun ma ne ko ci lan mu ne ma ñun nangam yi quoi maanaam waxuñ moom fi mu bokk ak yéen ahlu sunna wal jamaa ma ko déet yow yaa posé question kay yow yaa war a xam li ñu tàqale parce que man man yëguma ni am na am na lu ñu tàqale peut-être xëy nga wax ma doog xam ma lan moo tax yéen ngeen bañ mag ñi contre mag ñi indi woon nangam nangam ma ne ko parce que mag ñi dañoo def lu baax bàyyi fi ñu yàq la ñu defoon mu ne ma loolu ma ne ko sunu mbooloo mu tuuti bi ngay wax mu ne ah, ma ne ko loolu du gàcce du xas ñun ki sant yàlla comme mbooloo mu tuuti la tey lu tax nga jóg di ma woo mu ne ma non dama bëgg ñu waxtaan xuloowu ma ma ne ko waaw man it xuloowu kon nañu waxtaan léegi lan moo tax nga di ma woo. mu ne ma dama bëgg ñu waxtaan ndax li ñu bokk dafa bëri dañoo ñoo bokk julli bokk woor bokk nangam ma ne ko waaw yooyu yëpp ñoo ko bokk mu naa ma ne ko waaye dafa am yéen lu ngeen bañ ci yoon bi mu naa ne ko mooy woote ne yàlla nee na yonentam nee na mu naa ma ne ko ñiy woote ci yoonu yàlla kan nga ci xam kuy jóg saaga mag mu naa wax dëgg yàlla day musuma dégg kenn ci yéen mu saaga mag du Ahmed loo du Khalil loo du yow te donte nag yow yaa ci gën a tàng waaye musuma dégg nga saaga ma ne ko kon mi ngi noonu pour pourquoi ngeen di ñu tuumaal ay saagaak yu demee noonu ñun dañuy wax yàlla nee na yonentam nee na mu ne ah ne ko yéen seen problème xam nga lan la mu ne ah ko yéen du ngeen du ngeen waxante dëgg mu ah, ci lan ma ni ko yéen da a ànd ngeen ne ay suuf yi ngeen mu ne ah ko kaay ma jox la mu ne ah ma ne ko diine ju amul julleek woor kañ la ko yàlla wàcc ci asamaan ak suuf. diine bu amul julli ak woor te ñi dul julli duñu woor da ngeen leen a xajoo mu ne waaw loolu di dëgg la man mii sax ànduma ci de ma ne ko lu tax ngeen bàyyi ko kenn ci yéen wax ko mu ne parce que yëfi kilifa la ma ne ko benn mu ne ah, ma ne ko diine joo xam ne ku mu neex ne yàllaa ma yónni nekk yonent seen wet ngeen ànd ak moom gëm ni moom ab yonente la wala ñi ànd ak moom ngeen ànd ak moom gëm ni yonente la ana kan ci yéen moo ci wax mu ne xam nga noo yëfu jàmbur kenn waru ceex ma ne ko lu tax ngeen di wax ci suñu yëf ñun xanaa ñun duñu jàmbur mu ne mën ko diina joo xam ni day taxaw ne man yàlla laa diw yàlla la kële yàlla la ngeen xejoo ko ñun ñu ñëw ni yonent bi nee na ngeen bëgg ñu génn ci dëkk bi wala yéen ñu mëpp wala kenn amul droit gëm li ngay gëm mu ne ma noo cheikh omar man xulowuma dama lay laaj ma ne ko yii ma la wax yépp mi ngi ci réew mi mu ne ma ne ko te oustaz yi ngand ngandul nekk ci rajo ak télé yi di wër di wax kenn ci ñoom du ci wax parce que gëmuñu li ñu nekk gëmuñ ko mën nga taxaw nag omar sall dafa xas xas omar sall man aw ma temps di tontu ku may xas man ki ma am temps di la tontu mooy kiy wax diine mais ki xamut lu bari di wax damay noppi rek xam ne benn dof buy wax la mu ne am na ko yow mi nekk ci rajo yi di wax ñaata ustaad ñoo nekk ci rajo yi ak télé yi ana kan moo ci wax ci yonent bu am Sénégal mos nga koo dégg kan moo wax ñoo xamante ne tey nee nañu ya ñun yàlla la ñun nangam la ngeen seetaan leen kon xanaa ay naa naafiq ngeen xanaa ragalu leen yàlla xanaa wooteel yàlla taxu leen a jóg te képp ku gëm ni yàlla la na ko yëg ni yéefar bu mag la mu ne waaw loolu de moom dëgg la ma ne ko ngeen ànd ak ñooñu xajoo leen ñun ñu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñuy topp yéen ngeen ni muhammad ngeen di topp kon ooyee la problème ñun amuñu problème de yéen yéen a am problème ndeysaan ñoo tàmba jaag mu ne man dama bëgg na xam naa ni xutba bi nga defoon àjjuma bi passé maa ngi lay fibre nga àggale ko loolu moo indi tey ma àggale si xutba bi waaye ci leneen laa naroon wax gis nga gis nga mbokk yi dëgg yàlla rek ko moom alxaqu